lu tollook fukki junni ak juróom-benn yu tegal ñaari téeméer ak juróom ak ñeent fukk ñett ñoo bindu ci li nga xam ne moom moo di liste yi ci bar ñi ñu euh, bend leen ci li nga xam ne moom moo di. Euh, fukki bërëb yoo xam ne ak ñaar fa la ñuy voté euh, te nag fu ne am nag euh, ci lim ci bu ñu ko xayma juróom benn fukki bureau de vote loole nag li ñu seetlu mooy daanaka vote bi amul benn jiqi jàq bu mag boo xam ne ràññee nañu ko bi ñu tàmbalee juróom-ñetti waxtu ci suba si ba filek benn waxtu waaye terewul am na nag ay donc loo xam ne ci wotewukaay yi ay coono la rawatina numéro carte votant yi nga xam ne méngoowul ak li ñu bind ci registre bi yi lu ni mel la ñu seetlu ci bureau de vote numéro 6. dama ñëw di si ñu xool sama identité at yi ñu si xool ak sama yos benn la ak sama turu yaay ak sama turu papa moo tax jotuma vote mais nag dama xalaat ne sama mag ma bokkal ndey ak baay moo bu ñu koy defar dante yi foofu la amee problème loolu moo tax dañuy jóom daal si numéro bi. du ma neex lu ma gën loon naa wati ba mu neex mu baax. ndax ku nekk ki waaw. président bu bureau de vote numéro 6 bobé ci Bargny mix di andi ay léral sax ci li nga xamné mom modi tollu way bobu ah, ci li ñu néméku ak soxna silé matériel bi xamante lepp mom moom wara soxlé pour euh, pour les élections matériel bi yëpp mu ngi fi. ñi wara a aussi ñi xamante sen seen ñàkk teew mën na gàllankoor ñoom ñëpp ñu ngi fi donc tout se passe normalement alors 8 heures lañu commencé ba 9h30 la ben situation présentée wu dans le bureau de vote moy une dame moo ñëw tudde Fatou ndion bi mu ñëwee ñu identifier que on a constaté que référence yëpp manam date de naissance mo ngi fi bureau numéro 6 le mais le la seule différence moy numéro bi nekk ci carte d'électeur am ak numéro bi nekk ci registre bi ñu yor dafa am wóote comme dafa am wóote le document de référence document bo xam ne ci la ñu war liggéey mooy registre d'appel bi bi nekk dans le bureau de vote bu wóote boobu amé rek dañu naan ki xamantene mo moo pour voter du mëna voter voilà loolu moy li xamantene moy li xew mais luñ ci préciser rek moy am ko ku jiitu ku avant mom mais am les mêmes références am même carte d'électeur donc remplir les conditions pour voter dans le bureau de vote bàyyi nañ ko mu voter donc ki mujjee ñew moy ka bi xamantene mom la fi journaliste fekkee euh bi muy présenter wu kooku mën ta voter parce que registre bi ñu yor numéro carte d'identité néw correspondre ak numéro bi xamantene mo ne ci registre bi ñu yor Música